donc à déclaré que les clés sont inexploitables. Alors nous nous sommes retrouvés dans un cadre pour faire une déclaration de presse, donc dans ce sens. Alors je m'en vais très rapidement vous faire la lecture donc, de cette euh, déclaration de presse. Alors les candidats Malik Gueye, Mohamed Lamine Gueye, Mohamedou Madanakan Khan, Chon et Mohamedou Fadel Kone, entre autres, ont convenu de rédiger ce président communiqué pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les conséquences graves qui pourraient découler d'une décision d'éliminer les candidats sans aucun examen dans le fond de leur dossier de parrainage au motif que leur fichier électronique de parrainage serait inexploitable. À cet égard, nous tenons à noter que les candidats concernés ont passé plusieurs semaines sur le terrain dégageant des moyens humains et logistiques considérables pour, euh, conformément aux procédures de soumission édictées par le Conseil constitutionnel. Selon les procédures susmentionnées, donc les séances de contrôle des parrainages doivent être sanctionnées d'un procès verbal conjointement signé par le représentant de la commission de contrôle, donc à l'issue de la séance de contrôle, dans la plupart des cas concernés, les données du fichier électronique de parrainage ont pu être visionnées par la commission de contrôle et ont même pu être téléchargées dans certains cas. Des difficultés seraient uniquement liées donc au format des fichiers ne sont assurément pas insurmontables. À date, la commission de contrôle n'a pas, pas communiqué une position quant à l'issue donnée à ces cas de fichiers inexploitables, cas qui semble n'avoir pas été prévu ou envisagées dans le dispositif de contrôle des parrainages. Dans le communiqué du Conseil constitutionnel en date du 4 janvier 2024, il est précisé que les fichiers de parrainage de tous les candidats qui ont déposé un dossier de candidature comportant la totalité des pièces exigées par la loi ont pu être contrôlés, ce qui avère faux. Donc nous signalons que le fichier du candidat Mohamed Fadel Koné n'a pas fait l'objet non seulement de contrôle, et aucun procès verbal n'a été dressé et aucun, aucune clé USB ne lui a été délivrée, contrairement à ce qui ressort du dit communiqué. Alors, compte tenu, compte tenu des éléments ci-dessus, nous exhortons respectueusement la commission de contrôle des parrainages du Conseil constitutionnel à garantir l'égalité des chances de tous les candidats en, mettant, en permettant le contrôle par tous les moyens des fichiers de parrainage soumis par les candidats à la candidature. Nous demandons également à la presse, garante de l'accès à la bonne information des citoyens, de bien vouloir faire part des choses en distinguant les candidats éliminés après contrôle de leur parrainage de ceux qui ne sont pas encore contrôlés et qui doivent l'être suivant l'article 8 de la décision 1E 2023 du Conseil constitutionnel qui commande qu'il soit procédé au traitement automatisé du fichier électronique contenant la liste des parrains du candidat. Ça, c'est une déclaration des mandataires et les candidats à la candidature, donc dans les heures qui vont suivre, vont procéder à une conférence de presse pour plus de détails par rapport à la décision ou la posture que nous devons avoir. Nous vous remercions. leeral ci olof rek kenn nga ñëw. donc doyen euh, dina def euh, version olof bi merci. comme ni ko comme ni ko suma suma waaw man Samba Gaye laa tudd di porte parole coalition Dundu bokk ci coalition bi nga xamante ni dañu lëkkaloo pour ñëw leeral leen li nga xamante ni mooy motif bi ñu renvoyé mooy que sunu sunu sunu sunu parrainage kenn saytuwu ko moo tax ñu dajaloo pour waxtaan parce que boobu léegi ñu ngi dégg lu nekk ñu ñëw nag ni tey dañuy leeral parce que bu ñu waxul rek ah day wundu leneen donc comme ni ko Youssou Diallo waxee yéegi Youssoufa candidat yi ànd lëkkaloo dafay nekk Malick Gueye Mouhamadou Lamine Gueye Mouhamadou Madana kan coon Niang ak Mouhamad Fadel kone donc juróom ñooñu ñoo ànd ni dinañu tënk tey benn bataaxal pour leeral opinion nationale ak internationale ci li nga xamante ni mooy li mën a am ci lu grave ci parrainage yi bu ñu ko saytuwul fañ ko war a sayte muy ci fond bi parce que parrainage la ñu wax waxuñu fichier waxuñu leneen et li bëgg nag jox leen ay leeral yi nga xamante ni donte xam ngeen ko na leen ko bantuwaat bi ci njëkk dañu bëgg ngeen xam ni candidat yi ñu cité euh, dañu jug depuis ay weer depuis ay semaines sol seen dàll takk seen tubéy ànd ak seen ay nit di dind ci seen poche di def pour uti ay parrainage partout dans le Sénégal comme ni ko code électoral bi prévoir boobu mooy leeral bu njëkk ma buggoon ñu leeral ko euh, di leen leeral tamit que ni dossier parrainage yi nga xamante ni joxe nañ ko dañ ko joxe en version électronique mooy clé USB ak en version papier comme ni ko conseil constitutionnel ak code électoral prévoir ah le yooyu nag ñu ngi leen leeral ni amu ci kenn koo xamante ni bi nga jàllee ba pare jox nañ la procès verbal boo xamante ni commission bi ak mandataire bi signé ñu ko Eh, ci ci ñoom ñëpp ñi nga xamante ni eh, eh, jàll nañu ñu wax leen seen fichier exploitable kenn joxu ci kenn procès verbal boo xamante ni wane nañu contrôlé na wala càmbat nañu sa sa parrainage te parenage nag li koy leeral mooy ñu xool li nga indi càmbat ko ne sa resque pour xool effort yi nit ñi def seet li ñu indi baax na am baaxul. ñu jàpp ne tamit difficulté yi nga xamante ni moo nekk ci fichier bi du ay difficulté yoo xamante ni dafa dafa rëy difficulté yu ndaw la yoo xamante ni. bu nit ñi amee volontaire xool ko ku ci nekk bu ñu la mayee fukki minute di nga mën a indi li nga xamante ni moo ciy correction ñi nga xamante ni ñoo ko war a saytu saytu ko ñu xool sa parrainage. li nga xamante ni nag mooy dalal xel mooy tey ba bi ñu toll nii tey commission bi nga xamante ni mooy saytu contrôle bi amagul position bu mu jël parce que lii xew dafa nekk li nga xamante ni dafa bette dafa nekk li nga xamante ni disposition code électoral bi prévoir ko lan lañ ciy def donc nag du leen jiitu seen bar. waxaguñu dara waaye ñun dañuy leeral opinion internationale ak nationale pour lu fi xew ñu seetlu tamit que ni démb am na communiqué boo xamante ni conseil constitutionnel daf ko génne en date du 4 muy démb di wax ni fichier parrainage ñëpp ñi nga xamante ni déposé nañu seen candidature démb comme ni ñu ko waxee ku ci nekk sa fichier contrôle nañ ko loolu nag ah mu waroo ak li nga xamante ni moo am parce que candidat bi nga xamante ni mi ngi bokk ci coalition bii ñu ko ñu créé muy Mouhamadou Fadel Kane clé USB kenn contrôlé wu ko donc wax jooju teguwul fenn ñu leen di wax ne jotul benn procès verbal comme ni ko communiqué bi waxee benn clé USB joxu jox joxuñu ko ko euh, ñu bëggoon nag ñaan laaj conseil constitutionnel mu def li nga xamante ni moo war ci parrainage parrainage liñ ci xam mooy saytu ko xool ko contrôler ko loolu la ñuy xaar parce que ñun ñëpp dañu war a dem à chance égale kumba ndey am ndey ak kumba amul ndey waru fi am làq doom duma doom waru fi am ñi nga xamante ne joxe nañ seen parrainage dañu war a saytu seen parrainage li ci baax ñu ne leen baax na li ci bon ñu ne leen bon na suñ ko mënee uti ñu wuti ko loolu nag ñu ngi ciy tàllal loxo conseil constitutionnel pour ñu mu mu mu mu revenir ci loolu. et di leen lan aussi yéen ñi nga xamante ne yéenay suñu mbokk journaliste yéen macha allah di ngeen def di ngeen def liggéey bi mucc ayib et information bi yéen a ko war a joxe dañ bëgg nag su ngeen di joxe information aussi. ngeen def la dans la postérité la part des choses parce que candidat boo xamante ni saytu nañu parrainage am éliminé ko bokkul ak candidat boo xamante ni la nekk ci parrainage kenn xoolu ko bëgg nañu aussi loolu yéen ñi nga xamante ni yéenay yor presse bi parce que presse mooy def mooy dindi yéen a am pouvoir boobu bëgg nañu sujet bi ngeen ñëwaat ci leeral askan wi ni candidat yi nga xamante ni dañoo ànd tey def communiqué bi seen ay parrainage kenn xoolu ko ñu ngi xaar donc conseil constitutionnel xool ko dans les règles de l'art Euh, pour que chacun puisse jouer son devoir citoyen pour ñu mën a xam ndax ñii ñi nga xamante ni seen parrainage xoolaguñ ko ñu xool ko ndax dinañ jàll udde loolu mooy li nga xamante ni moom laa bëggoon xayma sama collègue bi jaar léegi wax na ko ci ci ci tubaab ci nasaraan ma koy wax ci langue ko ci barma pour ñëpp mën ko dégg ndax daf ñu amal itte ñu leen di wax ni euh, suñu ñi nga xamante ni ñooy suñu leader ci waxtu yi di ñëw dinañ def conférence de presse boo xamante ni dinañ waxtaan seet li nga xamante ni mooy attitude bi ñu war a jël mooy suite bi ñu war a réserver à cette déclaration loolu laa bëggoon xayma ci wolof di leen sant di leen gërëm ci seen dégluwaay bi tur bi man maa ngi tudd Samba Gaye di porte parole coalition dund bi nga xamante ni le le président Mouhamadou Madana Kane mooy leader bi ànd nag ak coalition bi nga xamante ni moom laa cité léegi muy Malick Gueye Mouhamadou Lamine Gueye Mouhamadou Madana Kane Thion Niang ak Mouhamed Fadel Koné ñoom ñoo lëkkaloo daal nag dinañu bind wax nit ñi li xew ndaxte information bi dafa jàllu na war a jaani parce que balaa ñuy wax nit bokkoo dañu war a càmbar sa parrainage dañ ko war a saytu te loolu amul maa ngi leen sant di leen gërëm jërëjëf. jërëjëf ñu lay sant di la